bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi lamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin waala alihi wa saxbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi ak bokki taalibe yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu ki fi nekkal cheikhul xadim di al cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tariqatil muriidiyya xafidahu llahu taala wa raxaahu mu kàddu yoo xam ne bi ñu koy jëm ci mboolem bokk jullit yépp rawatina ñi mu seqal lislaam ci weeru tedd di weer wi nga xam ne ci la rasulullahi sallallahu alayhi feeñee ci kaw suuf muy laylatu mawlidin nabi mu ci ndokkeel kon mboolem këri diine yi ci mbokkal ndokkeel mboolem ñoo bokkal lislaam waaye di ci boole ndokkeel mboolem ñu mu seqal àdduna ndax bis bii kat yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax suñ borom teral bindeef yëpp kon koo xam ne bu amutoon kenn du am kooka képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf boo ko yëgee ak boo ko yëgut na nga xam ne yaa ngi dund ci tedd yaa ngi dund ci tedd nga am yaa ngi dund ci teraangam kon Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe waa ndigal ca ne yi ko jëkk daan defe képp ko fi mos a nekk Serigne Touba mu yeesalaat ndigal ndax gàmmu bi ku ne xam na ne euh, Serigne Touba ñaar bis ak la amoon bis bi mu jégleel yàlla suñu borom tabaaraka wa taala te mooy màggal Touba. ak bis bi nga xam ne moom la jagleel rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te daa ko def di ko ànd ak bindeef yi muy loo xam ne lu yàgg la ndax laylatu mawlid annabi min asasi wa qaadali fawqa huna fii jamsasi aw fii talsasi bi ibaratin uxra kon Sëriñ Tuubaa yoon murid dafa juddu rek moo tàmbalee woote gàmmu gàmm goo xam ne itam ñëpp xam na ne fu mu mas a nekke dundale na ko fa ndax dundal na ko ci biiru nit daa ko wote dundal na ko ci bi mu nekkee ci alxaybatul baxriya nga xam ne moom rek daa wéet di dundal ba yàlla doof suñ borom del dogal mu dellu siwaat ci Sénégal ba ñu def ko ñaareelu exil bi mu dem Mauritanie ba dellu siwaat Sénégal ci ci yeen jolof mu di ko def ba yàlla def mu ñibbisi ci fi mujj nekk nag muy njaareem nga xam ne ku tudd njaareem rek saxee dem ci gàmm sëriñ bi daa ko woote bu agsee itam teraange yu bari lool dañ ko daa yóbbu fépp ci dëkk bi ñëpp di ko yëg fu ne taali bi daa fa bàyyi ko ñëw di dundal guddi gi sëriñ bi ci loxoom yu tedd ya moo daa jiite lépp di teraange yi ci loxool boppam la ko daa defee di teral nit ci kafe ki nga xam ne suñu borom da ko ko rafatale ak ataaya ak mboolem xeeti bernde yi nga xam ne xam ngeen ko rek moo daa jugal boppam di ko def di jël laj ko bi mu gënoon a fonk di zikki ak miski di ko sotti nit ñi ci guddi gi wax nañ ne weeru koor ak weeru gàmmu sëriñ bi li muy tabe tabe ndax mu a am soxla ci àdduna ndax loo ko mos sa joxe dala weeru gàmmu nag ak weeru koor bu agsee ak tabeem day yokk ba ñëpp xam ko di ko dàkk ndax loo ko wax mu ne danga koy waajale sama gan gu tëdd kon nag loolu sëriñ bi foofu la ko tegoon wax na ci lu bare bare ñu daa ci jàng gis bu mawaahibu muqaddimaat muqaddimaatul amdaax nga xam ne lépp ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi ak miim ya ci jàng itam albarzin jiw ngir leeral jaajaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon Serigne Touba ko fonkoon guddi la guddi gàmmu la noonu nag loxo mboolem njabootam képp daan defee ko ko fi mas a nekkal tàmbale ci al cheikh Mouhamadou Moustapha al cheikh Mouhamadou Fadil al cheikh Abdoul Cheikh Abdul Xaadir ku ci ne guddi gi bu masaan agsi dama ko daal dundal ba bët set ba jiite nit ñi ci jàkk ji ba Cheikh Saalihu Mbàkke nag yàlla def suñu borom defal ko ci xaas ndax moom ku ne xam na ni lu jëkk muy doon sëriñ Touba Touba gàmm gi moom rek moo ko daan woote ci biir mi ci liñ mën a xam ñëpp dem di ko fekke moo tax bi mu agsee nag nit ñi ngir dàkk bëgg ki fi nekkal sëriñ Touba ci la nag murid yëpp xam ne nag gàmm kat ndeke eh, lu ñu wax def la mu woote ko boo xam ne ci at bu njëkk ba waaye mu yëg ne diis na ci nit ñi ndax màgget gi gàmbu gi dafa jege mu santaanewaat waxaat ci rajo bi ñëpp dégg mu ne bépp barab boo xam ne kër Serigne Touba am na fa wala jàkka nañ fay dem diggu fa dundal ndax yéeram na nit ñi ci dem gi dellusiwaat Touba fépp foo xam ne nag kër sëñ tubaa amu fa bokk julli ja fa gën a jege nañ fa dem ànd ko ñoom ngir xam ne loolu mooy liy dundal al uxuwatul islaamiya ñu du ko def ci eh, Touba nag ci mag ci jumaay tubaa ji ak penc ba fi mu toll nii ñëpp xam na ne gàmmu tubaa àgg na foo xam ne eh, bañ rek lenn lenn loo xam ne day indi fitna ci nit ñi moo tax waaye xam nga ne dëkk ba kenn xëjatu fa ngir na mi toll ci gàmmu gàmmu njaari mi itam xam ngeen nam demee kon loolu lu yàgg ci yoon wi la bi mu fi bàyyikoo itam ki ko njëkk wutu ci sëriñ Sëriñ Tuubaa di Cheikh la Lamine Bara Mbacké noonu la ko wéyale ànd ko ko njabootu Cheikh Salif Mbacké ci njiital sëriñ Cheikh Mbacké mu sëriñ Saliou ñëpp xam nañ ne ba mu ko dalee dundal yàgg na ca biir këram boobu sëriñ baa ngi fi ginnaaw bi itam ak Cheikh Sidi Muxtaar ñëw wéyal loola di ko def di ko dundal bañ bàyyi ko fi nag Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla fi yàggaloo te ànd ak wér ba taxawaay bi mu taxaw ci lislaam suñ doon gën koo kattanal ba mu àggale ko ni mu ko bëggee moom itam mu koy fàttaliwaat taal bi nañ ko na ko bi daa santaane rek ba lu li ci yeesaat rek mooy daaw bi mu doonee Serigne Touba daa tàmbali di wax ne ci biir kër Cheikhul Khadim bi la koy defee mu boolewaat maag euh, Serigne Atou jël liggéey bépp teg ko ci. suñu loxo suñu aatu nekk jëwriñ ji di ko taxaw di ko taxaw ci jumaa di ko taxaw ci pénc mi ci biir loolu itam mu yee salaat ndigal li nga xam ne kilifaam yi joxewoon woon nañ ko muy daairatu muqaddamatul xidma bii nga xam ne ñooy saytu jumaay Tuubaa ji ci màggal ak lu dul màggal ñoom itam ñu daal dundal gàmm gi du ko def ay at ba ginnaaw bi waa daairatu rawdu rayaahiin bi nga xam ne moom itam daayira bee sëriñ afi bu su ko jite bàyyi etrodro yaxin sëriñ ahmadu bado bi moo ko jite ñoom naa ñu ànd nag lëkkaloo ci ndigalu sëriñ bi di ko dundal na ko sëriñ bi daa dundale ci njaarim mooy def ñetti kuréel ña jàng ñu jàng mu wax bi ñu jàng ñii di jàng euh, albarsan jiw ñoo itam ñu di ko fanaane ànd ko ba fajar bu sëriñ bi àndeek bokk taalibe bi yëpp nag ak bokk julli ci biir kër Cheikhul Khadim dundal ko ba fajar nag mu àgg fa ñaanal leen euh, incha allah bu àndee dogalu yàlla mu dem ci jumaay Tuubaa ja julli siyaarewaat Cheikhul Khadim yee salaat positif digg ma moom ñaanal nit ñi bañ dellusiwaat déwéne jàmm ndax guddi kenn di Serigne Touba digle bari na ndax ihyaau mawlidil bashir yaxmil ayaala wa duyóor fihi shifaun li sudur li kulli haadin muntami ay فمن تهامان هيئ لمن له قد قرا مبجلا فقبا خيرات أهل الهمم wax na ci lu bari bari bari dem na ba àgg ci wax ne laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi taabi wa tuhrihi taasumi waaye nag wax na ne nañ ko dunda ci sunna waxul ne gàmmu sunna la Cheikh Saliou daana fàtte at mu jot nee na waxul ne gàmmu sunna la waaye nañ ko dëppale sunna kon dëppale sunna nag mooy lépp loo xam ne sunna digle na ko rek ñu fexe ba di ko ci def loo xam ne lislaam bañ na koy ñu fexe ba bañ ko ca def te xam ne guddi gi kat lépp lu ab jullit am ci lislaam muy teraanga adduna walla alaxira ci guddi gi la ko amee ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loo ko suñu borom jagleel mooy bis bi nga xam ne ci la buumu njaam dog mooy bis bi nga xam ne ci la suñu borom daaneel kéefar yëkkati lislaam ba adduna ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa dajale ci moom ndax yonente yi ko jëkk ku ci ne yaa qawmi la daa wax muy yonente yàlla Huud yonente yàlla Luut ñoom ñëpp ku ci ne ba ci boo xoolee yonente yàlla Muusa ak Isa yaa bani Israayiila moo ëpp ci seeni wax waaye rasulullahi nag suñu borom da ko wax ne ko ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas ak ko ma arsalnaaka illaa rahmatan ak li unzirakum bihi wa man balagha kon mission tey moo tax mu daj àdduna kon loolu képp koo xam ne ak julli nga sëriñ Saliou daan wax ne guddi gàmmu de yemale ko guddi ga ko jëkk ak ga ko mujj dara jëru ko ci jullite kon la war nañ ko fàttali kon yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitalu sëriñ atu ci ndigalu sëriñ bi mu ngi yeesalaat ndigal li na ngeen ci daa taxawee rek ndax yéen xam nañ seen positif xam seen taxawaay ndax buñ leen soññ itam yaa ngi ci sëriñ bi rek ngeen ne kon na ngeen ko daa defee rek mbirum sëriñ Tuubaa moom rawat na li jëm ci yonent bi sallallahu alayhi dafa war a kanam waaye war a du ginnaaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu tàbbi ci bismillahir rahmanir rahim tam mboolem di ci suñu doom daali ñu day ceeg moom day ceeg tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu